waaye yow ndaw julit ndax bànneexu biir yi nga xam yaa ngi koy jëfandikoo di ko dugal sa biir bi nga xam ni ci diir bu gàtt mu génn dootoo ci am benn soxla danga koy dumoo yu sax ndax jar na nga xañ sa bopp teraanga yowmal xiyaam ba tax ngay sàcc alalu mbooloo alalu dëkk alalu société mbaa bu réew wala bu kër gi sax mbaa ngay ger ger yu ndaw yi moom moom lañuy ñuy waaye ger ba ger bi ñuy filmer ka koy filmer ak ka ñuy ger ba filmer ko ñoom ñoo atte yem ci atte ci yàlla le corrupteur et le corrompu ñoo bokk atte waaye ger yi tegu ci ay milliards kenn du ko tudd kenn du ko gis bu of naa nga xam ni saytu ndëngte moo taxoon mu jokk bu gisee mbir ñu teg ci suuf jële fa ñépp bu Cour des comptes IGE waxee mu yem ci rapport kër yi waxi noppi waaw ñii di saytu ba euh, alalu askan wi bu mu gisee lu amul yoon wax ko ñu naan lu tax du ñu wax du dëgg de dañ naan lu tax mu koy wax obligation de réserve waaw ñii moom alal ji ndax dañoo warul a xam fan la seen alal di dugg ndax dafa am ku leen ci gën a yey moo tax siiw na ku ñu dénk société deful benn résultat di saax saaxee alal ji teg ko ci politique te dara fekk ko ci bu ñu xamee rëq-rëq sax nag dafay mel ni dañuy lay gën a dooleel lu jub nag kenn du ko nëbb kenn du ko nëbb lu jub kenn du ko nëbb wante lu jubat yi dañu koy weer ndax mu am saafara ba dëkk bi mën a sowee nit ñi am jàmm képp ku yëngatu ci teg mbir yi nag mu leer tegu ci dëgg ku gëm yàlla nga patriote dëgg nga ku bëgg séréw nga képp kuy bëgg mu tegu ci leer muy dëgg ku gëm yàlla la te ku bëgg réewam la xutbul watani minal imaan la yonent bi wax bëgg sa réew ci gëm yàlla la bokk te bu ku bëgg sa réew na la gënal sa bopp na la gënal say soxla bopp na la gënal say soxla njaboot gënal la képp koo àndal xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala takallama bi mari xaq wala tausni fi llahi lawmaati laaimi yonent bi salaam dafa wax ci juróom-ñaari mbir mu koo xam ne mu ko dénkoon saabaam boobu ñuy wax abu zarin moo ñu jël ci benn bii muy ne mu ne ko na may wax dëgg te bañ ku ma ci yedd yonent bi ne abu zayrin deel wax dëgg bañ ku la ci yedd lu mu metti metti waxal dëgg wax dëgg bañ ku la ci yedd moo tax benn ñaawteef waruñu ko bàyyi mu jàll ndax ndénkaane yàlla subhaanahu wa taala da koy laaj ëllëg yow ndaw xamal ni une société qui dévie de son orbite naturelle et vit dans la décadence, le désordre, la corruption, le vol, la gabégie, le mensonge, la perfidie, la roubladise et encore, n'acceptera pas cette société, n'acceptera pas la justice comme système régnant et ne pourra jamais être authentique. dañoo war a xam ni askan bu jàdd yoon bi nga xam ni moom la baaxoo dem di dund ci dellu ginnaaw ci tasaaroo ci jaxasoo ci ger ci ñàkk coloré ci sàcc ci fen ci wor ci wax lu dul dëgg def ak loo narul wax ci njublang ak ak ak boobu société du nangu mukk doxal yoon ak teewal dëgg nekk loo xam ne ci lay sukkandiku ngir mën a tegu ci mbaax ak njub mi nga xam ne ñoo fi jiitu woon mbaax ak njub ñoo fi nekkoon wante nit a ko yàq def leneen dëkk yi war a jaay taaram ba mu yóbbalee ci njaaloo te si si sunu réew mii njaaloo tey jii doonatu fi lu rëy ba ñu yaakaar ne sax lu ñu duñu lu ñu war a moytu ci kanamu nit ñi ndax daganal bi nga xam ni daganal nañ ko ci kay ay loi ba àgg ci joxe carte jigéen bu ko man bu ko bu koy may muy jaay awraam ci lu amul benn na bu nag dem nañu sax léegi ba boole ko ci liggéeykat yi léegi dañuy wax les travailleurs du sexe les travailleurs du sexe loolu waxu lan la mooy ñi nga xam ni seen jumtukaayu liggéey ci seen mooy seen awra astaghfirullah yemandu ci loolu ñu ne leen tey di leen jële ci réew di indi ci réew mii des proxénètes qui se réclament même de l'islam di leen jëlee ci réew mii di leen yóbbu ci leen réew di leen fa daan jaay daanaka ay jaam lañu fay nekk waaye lu yokk xeetu liggéey yii mooy état laïque laïcité lu diine bañ daganal na ko moo tax ñuy jox ñu joxe autorisation ci képp ku ko bëgg a def ñu yombal la ko ci yow ce qui devrait être sévèrement réprimé et toléré et encouragé contraire à la religion li ñu waroon a taxaw di ne du fi amee la bàyyi mu mel nii dañ koy tooleel te loolu dëppawul ak sunu diine dëppawul ak benn diine sax sunu boroom wax na